هقى البكاء على سادات الأموات جبي الأراضي عليهم كالسماوات هقى البكاء على سادات الأموات جبي الأراضي عليهم كالسماوات هقى البكاء على Mouhamadul Moustapha ca taxawaay bu ba liggéey bu mag ba mu taxawee ngir jëmmi lislaam taxawal ko sëñ Tuubaa waaye taxawal ko murit yépp taxawal ko lislaam loole moo waral ñi may bëgg a présenté àndandoo teew fi sa kanam teewal seen jëf ngir yet mel ne ni ko baaxoo tudde baaxoo feenee teew loola dafay yokk waaye dara wàññikuwu ca ngir lan li xubbil Moustapha mbooleem fédération ittihaadu atbaayil xadim teewal nañu leen fi bu baax a baax a baax fédération islaahu da bu ko fédération islaahu daaray ni bu ko sëriñ Mbàkke Madina naka noonu munawiru sudur ak diiwaan bu kër sëñ mahmadan xariloo majmau nuurayni bu kër sëriñ aliyu mbàkke mawaaridul asfiyaa yi bu kër sëriñ ahmadu xusnul maab ahlu sidqi fi lmahabati walwalaayi bu cheikh ibrahima xafsatu assaalikiina bu kër cheikh saalihu mbàkke mustapha al muhsinuna bi ko Cheikh Ahmadul Khadim Moustapha al muxlisuun bu kër Cheikh Mouhamadul Fadil Moustapha waaye at taawunu fi sabilillahi bi nga xam ne mooy daare Serigne Ahmadul Muxtaar ndax tey ñëpp waa këram lañ waaye diiwaanul muridina bi lëkkale njaboot gépp waaye turandooy Cheikh Moustapha yi yépp ndax ne ñu sopp Cheikh Moustapha sax moo tax ñu defar seen daayir bi naka noonu sa bokk yi tedd yii di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikh Moustapha ci turu soxna Xadi Fatma ak soxna muslimatu ci la jiite liggéey bi di feeñ ci jotaay yi soppe yi di leen gis ñuy bëggee sëñ Mourou Moussa di ko waxtaane di naan café ak di waxtaane Cheikh Moussa ka jàng par ngoon ngir waajal bis bii mu ànd ko ak soxna Aminatu Mbàkke fat seen ak soxna maam Faati Mbàkke maremaloo mi seen rakk ak kuréel yenn ci seen gannaaw naka noonu ay jëwriñ yu ñu xam ci bërëb yi murid yi daje alxaaji Fallou Seck ci marché Mubaraka ak Moustapha Ngiraan ci marché Mubaraka naka noonu sëñ Moussa Gaye marché Maam Amintaloo ak soxna Cali Bey sëñ Moustapha gay ci marché Maam Jaara Busa ak soxna Faama Bey naka noonu almuhsinaat di soxna yi nga xam ne ñoo ne ci bayti dimaas gu jot ñu jël seen tame ak seeni i bale ñëw sellal kër gi ba mu set wicc ànd koog daam bëgg bàmba naka noonu waa kër soxna Faati Géey Njaay ci ci sa surra naka noonu waa kër Seex Siidiya Géey Gay moom sëñ Cheikh Ndiaye ummul naka noonu waa Bayla waa Taif waa Tindóodi fu ci ne ay délégation jóge nañ fa ñëw naka noonu daara yi maktabu nuur bu sëñ bay longoor ca xustul maab maam Ceerno Sekk ak daam gay daam jàng jàngkat jiite daayira ba foofu ak soxna Jóob naka noonu euh, soxna Mbeen Njaay ci quartier bëgg Bamba ak mboolem waa bëgg Bamba yépp naka noonu daayiratu daairatu ahibaail xadim li nusrati diin il xawim di waa kër sëriñ Moustapha Mbacke Mouhamed soxna say siise moom sa njëmb siise ak njawoot sa njëmb siise gépp naka noonu soññeekat bu ñu xam ci kër gi sëñ Muudu Habib moom sëñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi loolu moo teew ci sunu xel ci ñuy mën a lim xanaa ne amoon na ndigal ci soxna yi tudd ay tur yoo xam ne dañoo jàmbaare lool nekk soxna amisil la ca kër Cheikh bu doon jëriñ ci waa kër Cheikh Souhaïbou di di xeetu soxna amintaloo ñayu xare la fa tabaarakallaahu ci daayira bii mook soxna jaañ ak soxna jóbbeloo ca kër sëñ Omar Tall max kër sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan soxna ndey si la sa déex ndey njaay ami faal looto aale daba gay ami loo xadi maam say ñang waaye Louga am na ñu fa jóge ñii njaarim nañ jóge soxna loo baddo ma nga jóge Louga de ngir bis bi rek ndey siisee kazalika dakaar am na ñu fa jóge Abdou Mbay ak Mareem Mbay ca Caaroy ngir bis bii siyaare la rek sëñ bi Basiiru Géey ca Njaareem di wakka waa ka Muudu Gay ñii de bokk nañ ñoo xam ne ñenn ñi Louga lañ jógee ñee Njaareem ñenn ñi dakaar ngir fekke si bisub xubbul Moustapha siyaare soppee Cheikh Moustapha sëñ Moustapha ci daaru njaay teew na ànd ak waa daaru njaay gépp mboolem seexi daaru xudduus yépp ci tënk àndandoo nañ teew ci bisub ziyaare cheikh moustapha soppe yi ngir rek firndeel fedd li seen cofeel ci cheikh bu tedd babee di taaw bamba cheikh mohamadul moustapha ki nga xam ne moo andi raay bii moo fi def jumaa jii moo indi cheikh bàmba ci biir Touba ñoom ñëpp ñëwandoo ngir lan ngir siyaare la di sàkku yëtt yëpp ñëw na ngir cofeel cofeel am na lu ci sëñ Tuubaa wax nee na yonent bi sax moo ko njëkk a wax ne almar uma xaman ahabba nit ku ne kamu sopp ëllëg ñooy bokk fu ñuy dekkee te liwaa ulhamdi ba ci bis pénc ba muy mel ni pénc ker du fa ne menn mbaara fay ni ñu ko wax liwaa ulhamdi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo cee toogee ci soppeem mala yonent yëpp fa lañ koy fekk ku nar a texee fa nga koy fekk ci mbaar moomee mu ne nag almaru ma oon habba ëllëg bis penc ku nekk nga sopp ngay toogal kon nu ngi ñaan loola ci lii nu ngi ñaan loola ci lii la ca dolli ko mooy sopp moo ci yit sopp la rek la ca topp mooy siyaare la siyaare la nag sa maam sa way jur ji nga xam ne ñoom ñëpp yaay seen dono fii ci kër gii wa tabaarakallah waxoon na ne inna allazina ila sarsaara xad xasaddu ziyaarati faaraxu daarayni aw zaara ku ma fekk sa saara ziyaare ma nga ziyaare ma teqali ko nga ak àdduna ak alaaxira la jox bàkkaar ak bekkoor kon noo ngi fas lii loola ci lii loolee noo ngi koy fas ci lii teqali ko bàkkaar tey ëllëg noo ngi koy fas ci suñ siyaare bii ñu lay siyaare te xam ne yooyu sëñ Tuubaa di Cheikh Moustapha ñetteel bi mooy ku ne fi ñëw ku ne am na récit bu ñuy jaay tudde ko xubbul Moustapha ci ñaar téeméer rek wala ñeenti téeméer ñëpp walla ñu ci bari jël am nañ ko muy hadiya hadiya jooju yi sëñ Tuubaa xaadimal Moustapha tontu woon na ci Cheikh Moustapha ne ko dey ku ko joxe buñ la ko nangulee ca joxin wa da nga raw sag maas da nga gaaw a jéggi siraat bam sax du lekk sa yaram ci bàmmeel doo gis munkar ak nakiir lu bari ñu barkeel ko mu barkeel ko lu néew mu baril ko su baree mu barkeel ko lim na ci fukk ak ñaar ne loolu mooy njariñ hadiya ne ko nag am na ca loo xam ne dee su ko bind ci xalima dee su ko wax ci làmmiñ loolee nu ngi koy dagaan di ko sàkku ci lii kon yett yee nu koy ñaan ci yett yii moo na fi tax a daje ñun ñëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barkeb cheikh Mouhamadou Moustapha asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Ahmadul Muxtaar njabootuk cheikh Mouhamadou Moustapha gi sukk fi sa kanam te nëgëni si daaw nu defe woon ko nii delsi waat nanu sukkaat fi ci sa kanam di feddaliwaat sunu njëbbal ak sunu cofeel ak sunu yaakaar ci seex Muhammadul Moustapha siyaare tey bi dañ ci sant yàlla bu baax sant la ak ñaanal sant nanu yàlla bu baax ci yow ndax li Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bëggoon yàlla def na na mu ko bëgge woon lépp sotte na ci sa loxo kon yàlla na yàlla na la sunu boroom defal dunduk yent yàlla nuuhin ba li nga yéene liggéeyal Cheikh Moustapha liggéey yéene koo liggéeyal sa maam ja ndax bu ñu ne Cheikh Moustapha rek tuddaale nañ sax sa maam ja kon mënees naa ne Cheikh Moustapha la nga ko yéenee liggéey lépp sunu borom defal la ko na ko bëgge noo la ko ñaanal bu baax di la siyaar bu baax di delloowaat sant ndax e, ñun ñi nga xam ne lu bari am na ci lu ñu fekke li tax nuy sant Cheikh Ibrahima Mbakke Absatu lam nu waxoon waxtu ne dañ koy gis ndax lam nu waxoon du man dong la ko waxoon sëriñ Basiiru Sëdi imaam mii ca la woon Moustapha Diop ancien sénateur ca la woon ak sëñ Xabban Bay ak man mii moo nu waxoon ci làmmiñu boppam ne sëriñ Ndaam ma ne ko Mbakke mu ne bëgg-bëggub Cheikh Moustapha bi faw mu am te booba lii lañ doon waxtaanee mu ne ñe yàlla dogal nag muy am muy amee ca ñoom ñu am tawféex la ñu doon kon moo tax ñu yaakaar ne bisu tey sant rekk la ndax lanu bëggoon yàlla def na ko ci yow loolee Cheikh Moustapha bëggoon yàlla jaareel na ko ci yow Cheikh Moustapha nag kenn ku ci nekk da nga ko yoral bor sëriñ Moustapha Lo moom sëñ daa Abdourahmane Lo mi nga xam ne moo mujj ci doomi sëñ daam yu góor dafa waxoon ci làmmiñu boppam ne nee na ku di murit yoreel nga bor Cheikh Moustapha mu ne rawatina nag ñun ñiy donnante ak seex ndax ak ceex ca jamonoy sëriñ Touba kilifa gu fi mës a bàyyi ko li ci ëpp foofu la seex ga daa Cheikh Moustapha nag moo wéyal seex moo tax mu ne ku ne yoral na ko bor murit bu ne yoral na ko bor rawatina ñun ñi ngi doon ak seex bor boobu nag murit yépp warugar la ci ñoom ñu fay ko li ñu koy faye mooy bis bii nu dëgmal muy bis boo xam ne bis bu ko ñoroon la muy bis bi mu indi woon sëriñ Touba fii ci Touba muy ñaar fukki guddi yi mu war a doon alxamis fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit bi ca guddi ga doon juróom doon fukki fan ak ñett ci weeru novembre bis boobu képp kuy fay Seex Moustapha ci bis boobu nga ko war a fay ndax bis bu ko ñoroon la ndax su fekkonte ne la ko sëriñ bi santoon dara manqué na ci kon yoon wi esek kon moo tax la sëñ Moussa loon wax naan murit bu ne yoral na ko bor loolu foofu la ko fi foofu la ko sukkandikoo kon noo ngi sant yàlla bu baax ci jataay bi di sakku it nga ñaanal nu Mbakke li nga xam ne moom la njabootu Cheikh Moustapha gi nësër ba yàlla defal leen ci lu am solo ci sa nekk dañuy ñaan sunu boroom gën a guddal saw fan ni ma ko waxee woon mu defal du dunu yont yàlla nooyin ba loolu lépp nu am ci loo xam ne dana foo ko sunu njor. noo koy ñaan nga ñaanal na ko ndax mbooloo mi nosu nañ ci genn kàddu goo xam ne ñëpp kër yi yëpp mboolem foo xamee ne njabootu Cheikh Moustapha nekk na fa moo xam muy mbokk moo xam muy ab taalibe kum mën a doon ñoom ñëpp ànd na noonu nekk wenn say di déglu sa ndigal li nga digle moom la ñuy def te fas yéene la nga tere duñu ko laal mukk noo ngi lay ñaan ci bar ñoo ngi ñaan ci barkeb Eh, Cheikh Moustapha sa sa waajur wa eh, sa mag ju baax ji sëñ Cheikh Sidil Muxtaar yàgg fi lool nga yàgg topp ci gannaawam eh, ba li nga xam ne maanaam yi bokk ngeen ko yéene lépp ngeen defe ko na ngeen ko bëggee te ànd koo noonu taalibe yi te ànd ak wér ak am ba lépp lu ngeen yéene rek ba lépp lu ngeen joxe ñu mën koo def wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ baa ngi nuyu ñun ñëpp. sëriñ baa ngi nuyu nuyu nun ñëpp. di sant. di sant. alhamdulilah te di nu gërëm. te di gërëm alhamdulilah. cant yi ak ngërëm yi nag. mu ne cant yi ak ngërëm yi nag. ca la weesu la jëm. nee na ca la weesu la jëm. ngir yëg na ne. ngir yëg na ne. bi mu fi nee ba léegi. bi mu fi nee ba léegi. ak la ko jiitu. ak la ko jiitu. lenn lu mas a jóg. lenn lu mas a jóg. cib santaane. cib santaane ngeen yaafus ya ngeen yaafus ya mësta am kon nag mi ngi leen bu baax di kon nag mi ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di leen xamalit ne te di leen xamalit ne sëriñ Cheikh Sidiyal Muxtaar mii fi ne Cheikh Sidiyal Muxtaar mii fi ne bi mu amee lu mu santaane woon ngir ñu jàppale ko ci liggéeyu jumaa ji bi mu amee ndigal lu mu santaane woon ngir ñu jàppale ko ci liggéeyu jumaa ji sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na yéen njabootug Cheikh Moustapha gi yéen njabootug Cheikh Moustapha gii. ak ñi nekk seen i jëwriñ te ànd ak yéen. ak ñi nekk si seeni i jëwriñ te ànd ak yéen. mi ngi leen di seereel ngërëm mu gërëm seen kilifa yooyu te jëmesi ko ci yéen. nee na mi ngi leen di seereel ngërëm yu mu gërëm seen kilifa yooyu te jëme jëmesi ko ci yéen. ngir. ngir. lañu santaane woon. lañu santaane woon. te sëriñ bi bëgg ko. te sëriñ bi bëgg la ko ca war. la ko ca war. ngeen ko ba mu def ngeen ko ba mu mat sëkk. ba mu doon jëf joo xam ne. ba doon jëf joo xam ne. fu ñu teew fu ne. fu ñu teew fu ne. danañ xam ne. danañu xam ne. njabootu Cheikh Moustapha. njabootu Cheikh Moustapha. ñoo jëfe nii. ñoo jëfe nii fa tabarakallah. kon sëriñ bi nee jërë ngeen kon sëñ bi nee na jërë ngeen jëf waay. mi ngi ñaan ci barkeb ki tax ngeen di ko topp ko di déglu ndigalam. nee na mi ngi ñaan ci barkeb ki tax ngeen topp ko moom mii tey déglu ay ndigalam. li ngeen bëgg te di ko wut. nee na mboolem li ngeen bëgg te di ko wut. ci tey jii ñu nekk ak ëllëg gën jëm. ci tey ak ëllëg. nee na yàlla na ko yàlla defal. ci barkeb Cheikh Mouhamadul Moustapha. xolam sedd na ci yéen guy. nee na xolam sedd na ci yéen. guy guy yi fa tabarakallah macha allah dalal ngeen am xelam itam. nee na dalal ngeen am xelam. muy sant na ci li weesu. nee na mi ngi sant ci li weesu. di soññee ci li ci di soññee ci li ci suñ kanam. seq ko nun ñëpp. te nu seq ko nun ñëpp. muy bis bii ñu dëgmal. muy bis bii ñu dëgmal. mu bëgg. mu bëgg. xamoon ngeen ko sax. nee na xamoon ngeen ko sax. waaye mu dolli ko. waaye mu dolli ko. ci ñaax. ci ñaax. ak fàttali. ak fàttali. ngir fàttiwu leen. ngir xam na ni fàttiwu leen. waaye sama borom moo wax ne. waaye sunu borom moo wax ne. na fàttali saa ne. na ngeen di fàttali rek saa ne. kon nag fàttali dafa war. nee kon moo tax fàttali war. bis boobu nag. neena na bis boobu. du bisab kenn. nee na du bisab kenn nag. bisub Cheikh Moustapha rek. bisub Cheikh Mouhamadul Moustapha la. moo ko sant Serigne Touba. moo ko def ngir sant ko Serigne Touba. ngir ngir lan. li ko Serigne Touba santoon. ngir li ko Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ma santoon. ci boppam su ko noppee mënal boppam. nee na ne ko bu ma noppee mënal sama bopp. la ca sës la ca sës. nga ko ci man nga sësale ko ci man. te waral ko te waral ko. def ko te def ko. Cheikh Moustapha ko ne ko sëñ Bamba bëggee woon. nee na Cheikh Moustapha defee ko ne ko sëñ Touba bëggee mu sos bii bi nag. mu sos bis bii nag. di ko sant sëñ Bamba. di ko sante sëñ Bamba. ci jàppale googu mu ko jàppale ci jàppale gi mu ko jàppale. ba mën koo defal loolu ba koo defal la mu bëggoon. te Cheikh Moustapha moo wax ne. te Cheikh Moustapha moo wax ne. guddi googu guddi googu yi nu jëm waxtu wu dellu see waxtu wu dellu see ci jamono malaayika yi doon gunge sëñ Bamba malaayika yi doon gunge xaadimu rasul mu ñëw fii ñibbisi mu ñëw ñibbisi Touba su guddi googu dellu see saa bu guddi gi dellu si ñoom dañuy dellu si ñoom ñëpp te ku fi dajeeg ñoom ku fi dajeeg ñoom la nga bëgg tey ëllëg la nga bëgg tey ëllëg da ko am da nga ko am yéene gum yéene aw yiw nag nee na yéene gum yéene aw yiw nag ak bëggal nu njariñ ak bëggal nu njariñ moo waral mu santaat ko moo waral mu santaat nu ko mu santoon nu ko mu santoon nu ko. ba fi bàyyi koo. nee na bam mu fi bàyyi koo. mu bàyyi fi ñu am jom. mu bàyyi fi ñu am jom. te am ngor. te am ngor. te am fit. te amu fit. fexe ba la mu fexe ba la mu bëggoon. bañ a naax bañ a naax saay ñu wéyal ko rek. ka jiite woon. nee na ka jiite woon loolee. mooy Cheikh Ahmadou. mooy Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde moo ko jiite woon moo jiite la jëm jooje ak fu la jooje. nee na ay rakam topp ca ak i taalibeem ak i seexam. topp ko ñëpp topp ko. ci jomam ci jom. ngorom ngorom. fitam fitam. ba la mu la mu bëggoon. sax sax ba tey bi dàkk bisu jii muy gën a jëm kanam di jëm kaw. sëriñ bi wax ne. nee na sëriñ bi nee na sëriñ bi wax ne. sëriñ bi wax ne. dafa bëgg. dafa bëgg. loolee. loole ay kilifaam doon sàmm. ay kilifaam daan sàmm. te àndoon koog seeni kilifa. te àndoon koog seeni kilifa. moo tax ba ba mu egsi ci moom. mu fas yéene. mu fas yéene. ànd ak yéen. ànd ak yéen. sàmm ko. sàmm ko. na ko jiitu woon doon sàmm ko ñële woon doon sàmme. ànd koog yéen jom ci bi. mu ne kon ndigal ngoog nanu fas jom nag ñun taalibe yi. nan fas jom ci bis bi. nan fas jom ci bis bi. te xam ne. te xam ne. amuñu benn bis. amuñu benn bis. budul bi bu gën bii budul bii. budul bi budul bii sax foofu amuñu ko. kon nag kon nag. buñ ko booleeg dara buñ ko booleeg dara. suñ jom suñ jom. suñ ngor suñ ngor. suñu fit suñ fit. suñ alal suñ alal. suñ wér suñ wér. suñuy xel suñuy xel. bu ko dara wuute. nee na su suñ lépp na ko ci def. bu ko ko defee li ñu bëgg tey ëllëg li ñu am na ko Cheikh Moustapha am na ko ndax jëlee na ko ci sëñ Bamba ndax jëlee na ko nga si lii dul jeex su bu ko neexee nu amee ko ni bëggee kon sëriñ bi nee jërë ngeen jëf ngi ñaan mu ngi ñaan ci barkeb ki fi dajale ci barkeb ki ñu fi dajale ak pàkk bii ngeen daje ak pàkk bii nu daje daje bii nu daje tey nu daje tey ko fi ne ngeen déwén ci barkeb sëñ Bamba Xaadimu Rasulullah sallallahu alayhi yàlla bu kenn manki ku manki yàlla nay tukki ku manki yàlla nay sama mën na ko suñ borom mën na loolu yàlla na ko defal yàlla na ko suñ borom defal sëriñ bi ne jërë ngeen bi ne jërë ngeen gi sëy bi nee na màggal gi ñor na ko de fa tabarakallah nee na sëriñ bi nee na moo waxaat léegi waaw sëriñ bi moo waxaat dellu si waxaat ne naa soññeeyaat màggal gi. na gën a soññee màggal gi. nun ñëpp. nee na nun ñëpp. nan ci def jom. nan ci def jom. sunu defaru tey ak ëllëg. sunu defaru tey ak ci bis boobu la ci bis bii nu jëm rek la ne. kon nag. nee na kon nag. buñ ko booleeg dara buñ ko booleeg dara. nanu gën a lépp. nanu bis bi gën a lépp. tan way ci nun ñëpp. tan way ci nun ñëpp. ni ci seen kilifa waye. ni ci sunuy kilifa waye. ndax annoncement yi ngeen dégg yëpp mooy ndax annoncement yi ngeen dégg ci rajo yi mboolem ñi mu seqal kër gi ak mboolem ñi nga xam ne moom la seqal kër gi kenn ku ne dégg ngeen ci aw kenn ku nekk dégg ngeen aw turam muy wootee ci bis bii mu ne kon na ci ñëpp fas seen jom na ñëpp fas jom seetal dëkk bi seetal dëkk bi bala ñu àgg ci bis ba bala ñu àgg ci bis ba su ko defee. nee na bu ko defee. bu bu bu dëkk bi setee. bu dëkk bi setee. suñ lépp set. suñ lépp dana set. su màggal gi jegee. su màggal gi jegee. suñ lépp dana jag lépp dana jag. nan fas jom. nu fas jom. ci màggal gi ci màggal gi. ba mel nam daa ba mel nam war a mel. wooteel Cheikh Moustapha kat. nee na wooteel Cheikh Moustapha ma doon wooteel xaadimu rasul kat. lu mu jëmee ci sëñ Bamba kat. muy woote boo xam ne ci Serigne Touba la jëm. ñu di ci yaafus ba dara ba kenn dinu man. dee fi ba kenn dinu ca man. dara jëru ko ci noonu. kenn dara jëru ko ci noonu. nan ci boole jom. nee na nan ci boole jom. dañ doon doxe ba agsi fii. dañ doon doxe ba agsi fii. suñu kilifa doon ko doxe. kilifa yi doon ko doxe. ba bis bi naax saa yut. ba bis bi naax saa yut. nun ñëpp nañ ci taxaw. nañ ci taxaw nun ñëpp. ba lépp jàkk ba lépp jàkk. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. man de def naa ci bisu wàccal ca Tindoo di Maktabatu Nuur di dimanche incha allah neuf. shaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. barakatu Seexul Xadim. bokki jullit yi bokki taalibe yi. ñoo ngi dellu siwaat di leen nuyu ci turu kilifa gi di sëñ Ahmadul Muxtaar di ñaan suñu borom mu wan kii maanu gudd fan ci jëmmam ji yàlla na ko suñu borom bàyyi te taxawu ko mook njaboot gi mu àndal ba lépp lu ñu yéene liggéey ci yoon wi suñu borom def ci lu kawe njott li waxoon ni naa leen ko jot li mooy dañu amoon ab liggéey boo xamante ni ñu ngi ko doon liggéey ci jamono yi weesu ci Cheikh Mouhamadul Moustapha muy ab téere boo xamante ne ni doon nañ ko amal ci jeexitalu dundam muy ay taxawaayam ak ay liggéeyam ak ay seere yoo xamante ni nit ñi def nañ ko ci moom loola lépp ñu doon ko gëstu doon ko dajale ngir bëgg mu doon lu des loo xamante ne nii jamono daf koy continuer di ko dunde ba génération yi ñëw gën a xam Cheikh Mouhamadul Moustapha aku taxawaayam akub liggéeyam ndax mel na ni ñu fekke woon jamonoom néew nañ ñu xam ci moom dara luñ mën a wax itam néew na te li mu def kenn defu ko loolu nag laaj na ñu bind ko histoire saxal ko ba génération yi ñëw ci suñ gannaaw man fee fekk loo xamante ne ni ay jeexital yu bàyyi ko ci moom téere boobu yi yóbbu woon nañ ko Maroc doon ko mool agsi na moom la wax ne nañ leen ko jottali ba kenn ku nekk fexe koo xam fexe koo am muy lépp loo xamante ni nii nit bëgg na koo xam ci dunduk Cheikh Mouhamadul Moustapha keroog bi mu ñëwee jamono ba bi mu fi tàgguwaatee mu ngi ñu yaxal ci biir téere boobu yi téere bi nag arab lañ ko bind waaye incha allah mbokk yi ko doon saytu muy académie boo xam ci biir kër gi la aju njaboot gi ñoo ko coiffé mu nekk ci ron diwaan bi nekk ci ron daayira yi ndax nit ñi foofu rek lañ jóge ñu yaxal téere bi bëgg koo yaatal incha allah danañ ko traduire ci tubaab ngir ñëpp mën cee jot danañ ko traduire ci anglais ngir ñëpp mën cee jot danañ ko def itam ci wolof loolu itam moo tax sëriñ bi joxewaat lañu ndigal ci ni fii nga xamante ni moom la aynu ridaane muy teen boo xamante ni nii Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko gasoon ca ba ndox di jafe ngir jàppale dëkk bi ci fuñ mën a naane ak liggéey jumaa ji ndax daanañ fi jukki di tooyale ciment bi tabax jumaa ji kon teen bi bokk na ci jumtukaay yi tabax jumaa ji teenu barkeel la boo xam ne amuñu teen bu ko ëpp solo barab ba foofee mu wax ni nañ fa defar ay ak kër goo xamante ni nii jeexitali Cheikh Mouhamadou Moussa yi muy lettre yi nga xam ne doon na ko bindante ak tubaab bi ci liggéey jumaa ji ak ay lettre yoo xamante ni nii doon na ko jëflante ak ñoom ak ay diplôme ak décoration yoo xamante ni nii tubaab yi defoon nañ ko ci moom ak makket yi nga xamante ni defaroon nañ ko muy defaroon nañ këru njaarim gi ba mu doon jëmm ju mën a tege defar jumaa ji fi mu yemoon ci ab liggéeyam yooyu yëpp mu ni nañ defar foofa barab boo xamante ni dana méngoo ak moom def ko fa ba fépp fu waay jógati bëgg a xam dara ci sëñ Moussa boo duggee ca barab boobee lépp loo bëgg a xam ci sëñ Moussa danga ko ci xam ndax loola mooy tax mu mën a sax mooy tax itam déetuñu bàyyi nit ñi kenn ku ci nekk lu la neex waay wax kenn ku ci ne di sos wala ñuy jël loo xamante ni nii moo ko moom di ko dëkkale ci yeneen barab te fekk loola lépp sunu càggante rek moo nu ko teg yooyu la sëñ bi waxoon ni naa leen ko jottali ba fu fi bokk yi ñëw ci yéen kenn ku ci ne xam ni loola liggéey ba ab ab santaane ma ndigala ma te ak bëgg ma kenn ku ci ne nag nga xool sa kemtalaayil kàttan ak fu la jëmmi sëñ Moodu toll akub liggéeyam ak saxal njëmmatam ak suuxat ko léggéey boobee ñu jàpp ci mu mel na mu war a mel teen ba itam mu wax ni da bëgg mu doon ab satadoo boo xamante ne nii robine lay am nii ñu defaree ay nu rahma ñu defaree teen bi noonu defaree mu mucc ayib boo xamante ne nii daana sax doon symbole ci lenn ci liggéey yi Cheikh Mouhamadul Moustapha la daal boo xam ne noo ko war a sàmm noo ko war a aar noo ko war a taxaw ba njaboot gi nga xam ni day ñëw suñu gannaaw bu ñëwee fekk fi yu yu wér yoo xamante ne nii jamono deetu ko fals mukk di ko jëme faneen ndax bari na yoo xamante ne nii nit ñi xamatuñ ko wala soo ko dee wax ñu defee ni yu bees la yoo xamante ni yoo koy fent te wax dëgg yàlla dund nga at yee bëriwut waaye dund gu barkeel la goo xamante ne nii jëfal na ci sëñ loo xamante ne nii kenn jëfalu ko te loolu jamono moo ko firndeel lépp loo ko tuddal mën nga caa indi seere mën nga waaxoo kan ko seqaloon ba ni lii la muy wetuk saayir wetuk baatin nga moom duñ ca dugg ndax déggam ak sëñ moom kenn xaju ca te it wérte wóor mooy la mu waxoon ni dégg naa ngërëm moom ay yoon ay yoon waaye juba ma doy looloo tax mbetu biir ga dafay xaw a nëbb baneen bi ci des itam sëñ waxoon ni cérémonie officielle bi dañ ko daan dugal ci biir bisu màggal gi léegi xataay bi ak bis bi guddi gi la sëñ Moussa di màggal tax na cérémonie bi génn nañ ko buñ màggalee ba ci suba sa lañ koy def fii ci mbaarum Darou Khoudoss bëgg na itam bokk yi kenn ku nekk la nga jàppoon nga bàyyi ko ñëw teewe si cérémonie bi muy waxtaan woo xamante ne nii la sëñ muusaa daan wax muy discours yam daan bind fàttali nit ñi yàlla fàttali leen seen borom fàttali leen li leen bool ak sëñ bi wutal leen aw lay ba bu ëllëgee kenn ku ne am yaakaar ak rafet njot ci ne da nga dajeeg sëñ Tuubaa loolu rek la fi fàttali waaye doonu cérémonie boo xamante ni da koo dajale ngir wax nit ñi lu leen ne wala wax nit ñi yoo xamante ni ci tey boppam la jëm waaye da di fàttali ki tax ñu daje lu taxoon mu ni dajale ak lu taxoon suñu maam ya gàddaay fekk si ko mooy jataay ba nga xamante ne nii buñ màggalee ba ci suba lañ koy def ndax guddi gi dafa xat te guddi gi day guddi gu rëy goo xamante ni nii liñ ci mën a amee mëneesu ko am ci gëneen guddi ñetti guddi rek lañ ci tudd ci lislaam yoo xamante ni nii dañ ku ca fanaan suñu borom jéggal la guddi lay latu xadar dafa lëmu kenn xamu ko dañ koy wër borom xam-xam yi jubawuñ ci ni genn guddi lay doon ñu ci bare bari buñ umee wooru koor lañ koy commencé làmb ba keroog ñuy woor sëñ Mat Lamin Jóob moo ci mos a nettali benn yoon ci dunduk sëñ Tuubaa ni day am na benn bis ñu koy màggal sëñ bi génn laaj leen ñu ni ko tey la lay latu xadar sëñ bi ni du tey ne bañ demee ba weer wi sori sëñ bi ni leen bis ba ngeen doon laaj tey la waaye dañoo fàtte ñaata fan la ca weer wa moo lay xamal ne la guddi gu lëmu la goo xamante ni neexut a xam beneen bi ci des guddi gàmm la sëñ Tuubaa nu ko wax ku jàng gis ba da xam ne guddi gàmm ku ko mokkal ku ko màggal suñ borom far say bàkkaar loolu sëñ Tuubaa nu ko wax te gëm nañ ko beneen bi ci des mooy guddi gii sëñ Tuubaa fanaan fii sëñ Muusaa Saatu wax te gëm nañ ndax nee na yitte ju jar bañ a si Tuubaa suñu borom sakku ko yitte ju jar ba nañ fanaan si Touba ci guddi ashirina muharram nee na suñu borom sakk ko waxoon na itam ni suñu borom bind na malaaka yoo xamante ni képp ku bëgg a ñëw te mënoo ñëw nga seet yoon wa jëm Touba nga jaar ca ba fu la bët set fekk nga wàññi ko nee na suñu borom bind na malaaka yoo xam dañ la gàttandu jox la sa wàll ci màggal gi door door a wàññi kon bis la boo xamante ni bis tollut ni moom te it mboolem li lislaam di lu ci ay bis yëpp guddi la guddi laylatu xadar guddi gàmm guddi asura guddi kasu su guddi nisfu saaban yëpp ay guddi la ñeneen ñi ci des na xay na suñu borom da leen a wan ci bëccëg loo xamante ne nii sëñ Moodu gisu ko woon ci seen i bëccëg waaye guddi gii moom li ci sëñ Moodu saa gis lu wér la te it fu wér la ko teg moo taxoon sëñ Cheikh wax ni képp koo xamante ne ni kañaan muurut sa bëti xol da nga xam ne bisub sëñ Tuubaa bii moo gën a yeyoo màggal ci beneen bis bu dul moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu